salaamaaleykum mbokki topp 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission jotaayu ndaanaan yi jotaayu ndaanaan yi nag bu ngeen ko déggee xam ne dañ ciy dalal ay ndaanaan yu mën li def te bëgg ko lool macha allah bi la yoon nag ñu daal di dugg ba Mbàkke Bawol fekk fi fi nga xam ne si ne moo di Dàmbaay Dàmbaay nag ku ko dégg doo ko laajte ci jotaayu ndaanaan mu nekk nag koo xam ne si ne moom lañ war a dalal fii nag suñu ànd ak nag suñu cameraman muy Seexuna Seexuna moo nekk ci cameraman bi daan ñuy topp nag ñu daal di seeti ki nga xam ne moo di suñu ndaanaan waaw ni ma leen ko waxee woon nag gi daal di gis nag ñi daal di installé wu ba pare ndaanaan yi toog di ñu xaar muy ki nga xam ne moo di Dame Ndaye dégg ngeen li muy def ci yëfi ndaanaan Dame ñu daal lay nuyu. ma leen jaay mbéri waa asalaamaaleykum maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaw ñu daal lay bàyyi tamit nga daal di nuyu ñi nga xam si ne ñooy ñi lay seetaan ci 24actu.com. rajo ni lañ ko waxee woon nag ne woon nañ leen daanaan lañ seet si ba tax na ñoo ngi fii ci biir këram jàkkaaroog moom muy Dame Mbaye. sister maa ngi leen di ziar maa ngi nuyu àdduna salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu di sant yàlla bu baax a baax ci seen teewaay fii di julli ci yonent bi di sant Cheikh Ibrahima Fall Lambaal Mouridina sant sunu wasila Cheikh Abdou Sakor Mbodj di ñaanal xalifaam Serigne Ndiaga Mbodj. suñu buntu ci yoon mu yàgg fi loolu ci wér ñu koy waxee saa su ne di ñaanal suñu wajur wa alaaji mbedd mbaay suñu borom seral ay yaxam ah, xaare ko firdaw si di ñaanal suñu jur wu jigéen wi ñu nekkal ajaratu Seynabou Samb suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko di sant àdduna yépp ki wax salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa barakaatu daam Baye xalale Baye Fall de musique sénégalaise muy nuyu àdduna. waaw daam noonu nga daal di nuyoo askan wi lay seetaan rek ñu daal di bëgg tamit nga daal di def yëfi ndaanaan yi tàngal xumbal fii daal bala ñoo tàmbali ci émission bi. Njaayo njaay man de yërëm na ma leen njaayo mbéri. Njaayo ma njaay. man de yërëm na ma leen njaayo mbéri njaayo njaay man de yërëm na ma leen njaayo mbéri nan njaayo njaay njaayo njaay njaayo njaay man de yërëm na ma leen njaayo mbéri njaayo njaay man de yërëm na ma leen njaayo mbéri mbéri kanjiraan salambéri kañiraan ña nga war seen gaal ga jëm mbéri nan ba nu njaay ba ñu yeggee da yërëm na ma leen njaay mbéri njaayo oh njaay mën da yërëm na ma leen njaayo mbéri nan mbéri kañiraan salambéri kañiraan ña nga war seen gaal ga jëm mbéri njaay ay mbéri kañiraan salambéri kañiraan war seen gaal ga jëm ba ñu yeggee man yërëm na ma leen njaayo mbiri njaayo njaay man de yërëm na ma leen njaayo mbiri njaayo njaay man de yërëm na ma leen njaayo mbiri njaayo njaay ña nga war seen gaal ga jëm mbiri ay nan ba ñu yeggee njaay ba ñu yeggee man de yërëm na ma leen njaayo mberi njaayo njaay man yërëm na ma leen njaayo mberi njaayo njaayo njaay njaayo njaay man yërëm na ma leen njaayo jaayo jaay oh, man de yaram na ma leen jaayo oh, mbir ah, macha allah li yëfi la ku ko dégg dégg ngeen ni daam daal di nuyoo lu waral way bi nga woy sànq ni daam. waaw woy wii ah, sama yaram da ci xaw a am lu ci daw tuuti ndaxte dama daan dégg bu musaan dem ci ay kasak sama papa laa daan dégg mu daan ko kasak daan naa ko ci sax tooñ naan ko yow way wii rek nga man way wii rek nga jekku muy njaayoo njaay man yërëm na ma leen njaayoo mbiri naan mbiri kànjiraan ak saala mbiri kànjiraan ña nga war seen gaal ga jëm mbiri ba ñu yeggee man yërëm na ma leen njaayoo yi loolu nag woy la mais dafa am lu woy wi di wax ndaxte léegi la woy kasak yàqu waaye bu jëkk kasak dëgg dafa amoon woy woo mës dégg ñu koy woy te muy woyu kasak di woyu original rek dafa am lu muy wax am loo xamante ni bi doon ko laaj selbe yi ak bootal mbaar yi ak jànqi mbaar yi ñu ko daan ceeqi ku ko ci mënul jël leng di la ko caw loolu moo indi njaayoo njaay man na yërëm ndaw ndaxte aw cax la waaw ndax am lu muy wax loolu loo xam si wayu moom lay wut ndax di wax waaw muy loo xam cosaan la ci kasak cosaan wayu kasak kasak la ah, parce que bu jëkkaan nga daan gis léegi la def ku jóg rek way mais bu jëkk kasak da nga koy jàng ci woy danga koy jàng ci ay kasak wala ci làmb wala ci simb wala ci ngoomaar yi ci loolu la doon jànge woy ginnaaw boo ko donnee ba pare ci say maam mais nag léegi eh, comme géej gi amatul mool koot àll bi amatul sàmm sàmm amatul pël koot kon musique bi du mën a am géwél kot du am géwél ah, kot wax nga dëgg waa ñu gis na daam yow tamit doomi ndaanan nga loolu kenn laajteetu ko te man nga li ngay def macha allah waaye aar bi nan nga def ba dugg ci waaw bi ni ma ba dugg ci loolu yomb naa wax yombut a wax ndaxte kii ma dëndal nii mu toog di ma aw mooy sama wajuru jigéen euh, ñu koy wax sëy bu sàmb sama baay nekk ji mbedd mbay nekkoon baj géwél fii ci Mbàkke Bawol nekk ndaanaan lu mag loo xam ne Sénégal foo taxaw ne alaaji mbedd mbaay xam nan ko sama juróom-ñaari maam ci ndey ak ci baay yëpp di ay woykat di ay ndaanaan waaye nag métier donn ko lu waay donn mu dëgër waaye métier tamit bu mokkul sonal borom moo ko tib ñoo yem ko seexee bu mokkul sonal borom waaye métier it bu mokkul sonal borom kon niñ def bu dugg ci woy mooy ginnaaw buñ ko donnoo ba pare nekkoon ci biir sabar yi euh, di woy ci simb yi di woyantu ci ngénte yi di tëggantu ay bool ay sabar ay bongook jàng ko plein ba nga xamante ni bii am na jëmmi jamono nag mu dugg ci sunu yaram à 100 pour cent ci leen doog a génn nag dem Ndakaaru jàngi musique bi ba nekk ci musique sénégalaise di ci bay suñu waar ba tey jii ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax waaye daal ni ñu def bu dugg ci woy moom lu lu waay doon rek la lu lu doon la mu dëgër dañ koo boole nag jàng ko ba man ko tamit ci ban âge waaw ci ban âge parce que bu nee donn moom lu jiitu sag juddu lay doon bu duggee ci baatub donn mooy lu jiitu sag juddu ak sa juddu sax waajur mën naa am parce que dañuy faral di wax lu doon ci maam yi la lu lu ñuy doon ci maam yi. Mm-hmm. ci maam yi lay doon. Mm-hmm. waaye bu dee ci ase bi ñu duggee ci nga xamante ni bii mooy musique sénégalaise xaw nañu ase parce que jàng nañ fi métier sunu nijaay ju ñuy wax Abdou Sam bokk ak sama yaay ji ndey baay mm-hmm. moo ñu jàngaloon métier ba berñu ñu boole kook di sàcc di def aar di sàcc di def aar ba yi fi nekk ci ñun ñu mujj comme aar dafa fiir ñu féete ci aar bi mais boobu yaakaar naa ni dem nañ ba ay ay ay ay euh, ay 17 ans 16 ans jëm mu mel ne bu ma juumul dégg naa nga du kon du moom moo la ci teete walla yaay kan moo la ci teete daal. waaw xam nga xam nga ndey ak baay ñoo seq doom ndaxte bàyyi moo lay tànnal yaay ginnaaw yàlla. mais biyaay it moo lay tànnal bàyyi ginnaaw yàlla. loolu la ginnaaw bu yàlla dogalee ñaari ndaanaan yi ma la wax ni seq ma jur ma ah, samay samay mbasaka dégg nga bu suñu juróom ñaari maam yépp yi waykat lan ay baj géwal ci ndey nag ak ci baay. kon ça euh, way jur nee na la dañoo judd fekk mu nekk baj géwal yor batterie sabar. di dem fépp ci Sénégal Sénégal foo taxaw ba ne alaaj mbedd may xam nañ ko. ngeen daan ànd ak moom. waaw sama yaay dégg nga ko sànq lim aw xam naa du ñàkk dinaa ko jox. mu mu def boo ko dégloo kon ça dire question boobu day daal di a tontu boppam. Ah, a xam ndax xam naa ndax am nga orchestre waaw yor nañ groupe xàll groupe. waaw ñu ngi liggéey ak orchestre xam naa ne boo duggee ci internet bi xool moo defee dàmbaay xàll rek di nga gis suñuy activité suñuy aar bi ak yi ñuy def yëpp. lan groupe moo waral daam xaal dàmbaay li ko waral mooy comme sunu sunu sunu sunu maam sunu tagg mooy xaal ak machine dem ba góor maa ñoxor ko du làmbaan mbaay. ginnaaw bi ma tuddee daam mbaay nag yàlla dogal 2006. entre cinq 2005 2006 bi ma demee Ndakaaru BSDA di war a am carte BSDA comme BSDA tour tour normal du fa dem da ngay def tour ak sirno maanaam daam mbaay di nangam bi ma laajee sirno boobu nag ci la sama bopp takk dem ci pourquoi pas ma dàkkantal sama bopp sama maam muy la ndaxte boobu famille bi rëy na yaatu na fi laa ko fekk fekk fi samay baay ak samay maam mais kenn mësu fee tudd noonu ma am maam ju tudd xàlla ñu naan xàlla ak mbisin demba góor maa ñoxor ko du làmbaan mbaay xàlla mbaay tëggal na lingeer mbisin mbaay tëggal na lingeer mm-hmm. léegi loolu waral ma jël xàlla ji kon def ko sama sirno pour mu mën a dem BSDA BSDA tey boo fa demoon boo bu tàppee ci machine yi dàmbaay la mooy ñëw ma daal di utiliser xàlla boobu mais xàlla sama tagg la rek mi ngi mel ni nga ni Mbàkke Balla wala Jóobu Juboo wala Njaay Jaata. ah tagg bi la waaw ah nga jël ko noonu. Ah, wax nga dëgg waaw daam gis ne ba tey yaa ngi Dakar nekk daanaka ci lu ëpp ndax ah, ndax yaa ngi def ci lii ngay def aar bi nga nekk yaa ngi ciy def ay tournée wala demagoo ci. ñoo ngi ciy génn nag ci national bi nii. ak ci pays Afrique yi tamit laal lañ ci dara as tuut te ñaan yàlla mu gën a yaatu. ci bay sunu sunu waar bu baax a baax waaw. Ah, waa léegi tamit comme que jotaayu ndaanaan la te bëgguñu mooy seet ñu bëgg nga daan ñuy defal nag kii fi ndaanaan yi daan na der nag mu xaw a yëngu tuuti waaye daal. ñala gi nag daan jël du man ba doolaay. bu déggee ñu naan Friuli ñaala géej naa daan jël waaw mu ñëw tuuti daa am mu bëgg way taraanga jom laaw góor su nangoo liggéey bëggi bokkam taraanga jom laaw taraanga jom góor su nangoo liggéey bëgg bokkam taraanga jombul la ay taraanga jombul la eh taraanga jombul la góor su liggéey bëgg bokkam taraanga jombul la eh, waaw jombul farwaay liggéeyo tubéy badoola woy ma yooyal maa ngi koy yooyal sama géer xaadim amar ajal texe amar la ñu wooyee yaayam bàyyi seex amar la ñu wooyee baayam ee sëriñ ko waata sugu lay bëgg jiile góoru ami amar ee góor fu nangoo liggéey bëgg bakkan taraanga joomu laay taraanga joomu laay waaw waaw góor fu nangoo liggéey bëgg bakkan taraanga joomu far yele ñëw la kay naa ko daan jël ee waaw waaw waaw ndeysaan ne ko wax na ngam dina fa fekk sama góor sama doom yaay Baye Fall bi wayal Abdou Diagne Baye Fall sori abi bébé ma ne bëgg naa la oo oh, waaw yaa bëgg dambaay xala Abdou Diagne Baye Fall lee waaw góor su nangoo liggéey bëggi bokkam taraanga joomu la waaw taraanga joomu waayi teraanga jomb la woo góor su nangoo ba kaw teraanga jomb la woo teraanga yow ma moori ba moori ma def ndaam saa dala combat mi bakkoon da mel mooy sama papa góor samb borom Atlanta joojo ajaran fari sekk mooy sa yaay Malik Samb mooy sa baay samb dala saala mi ci nguy njaay saa jamaale baaba raam awa jooba tooma wa joom du fami ci jàmm njaay maam ndërëg ndërëg sa maay mooy sa maam abdullah saabu nga bokkal baay ak yaay góoru faatu saabu lay woyal waaw sëri abdullah mbooje faatu saabu sama yaay moom nga bokkal yaay awa saabu nga bokkal yaay oo oh, oh, waay war su nango liggéey bëggi bokkam teraanga jomb laay teraanga jomb laay war su nango liggéey bëggi bokkam ay waay bëgg naa fa sama xarit Laat création waaw bëgg baax te bëgg dàmbaay xala laatuy borom belele yaay waaw ee waaw ndeysaan xale sëf sëg Mbakke Mbaar rakki Mamadou Jaar sëriñ Thierno Birahim Ndam la ca daarooy sama bañ leen ku may wayal Tamba yi nekkoon Modou Bamba Xaadim Rasuul laaj leen ma ku may Serigne Mbacke maaram yow bu jar na wayal kooku jar saburi lim la manal ci lu baax def na ko ab sëriñ dalay xam fii manal la fii nga yaakaar ko fa nga jëm bis nga gisee moom géej ku ko way di dem ndax Cheikh Abdou Lahad baayam moo ni ma ñàkki caaxaan Cheikh Abdou Lahad baayam ku mbokkal dimbali na la kum am dimbali na may laat mi ngi ci jumaay ji di wet li ko baayam ne dambaay soxna may mi nga yewaya may laat ji jar na wayal doomi Cheikh Abdou Lahad ji jar na wayal ba tey dégg ngeen rek li fi daam defet yi xam ngeen ne lii li ma leen waxoon rek ne woon naa leen bu ngeen jàkkaaroo moom di ngeen xam ndax yëfi lay def gisaan nañ fi ngi ñu daam mu nekk waaye boo xam ne tamit lu ci bari mën nañ cee waxtaane est-ce que boo ko dee xool tamit mu mel ne ab soññee mi ko waxee noonu sax est-ce que du ci soññee tamit waaw waaw waaw parce que ku ne xam na na ni moom man samay œuvre yëpp bu may woy nit sax dama ciy dugal tem parce que woy bu diglewul yeetewul euh, ay naxaate la parce que donte da ngay woy benn naar gay sax war nga cee mën a dugal tem boo xamante ni bii ku ko déglu rek day sentir que ni euh, yaa ngi yaa ngi soññewaale ci biir woy yi moo tax ma woy woy wow ni teraanga jombul la ndax gorsu nangoo liggéey bëgg réewam walla bëgg boppam wala bëgg bokkam taraanga jomb la way ci nag sama sëriñ boobu muy soxna may laat yi ko xam mën naa ni waajur la ci man sama yaay la sama maam la sama lépp la ndaxte sama taaw bu jigéen bi mu ko juree ginnaaw yàlla jaare ko ci man ba noppi dama ko ko jël ba muy am juróom benn at jox ko ko muy xujja mbaay ma jox ko ko muy soxna may laa di mooy taawu sëñ Abdou Lahad Mbacke mu yoral ma ko jàngalal ma ko yaral ma ko mel noo xamante ni jéggi na doyee aw ma dara lu ma ko mën a faye aw ma xaalis ba ma ko may aw ma alal ju ma ko jox mais ma am sama baat bii nag aw ma sensu sax woy ko waaye tey ma profité ci occasion bi woye ko sama yaay jooju muy soxna may laa di ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ak njabootu sëñ Abdou Lahad Mbacke gépp ci barke maam Serafal. waaw ñu gis na sa yaay tamit gis nañ mu dugg ci biir jataay bi wàcc mooy lu neex loo xam ne mi ngi koy pelloog yow nañ bu ñu ko xoolee muy lu neex yaay booy looy wax ci daam nga xam ne mi ngi ci aar bi. est-ce que ba muy dugg ci moom ndax dañ ne aar dafa xaw a metti lool ba boo ko xamee sax di nga ci gis ñoo xam ne seen i doom dañ ciy dugg ñu naan ko te nga bàyyi ak yooyu est-ce que am ngeen ci yooyu problème. waaw ah, salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum suñuy bokk ñoo ngi gërëm yàlla bu wér di sant suñu ñaari waajur di ñaanal nag sama sëriñ ba ma juróon njaboot gi yàlla xepp àjjana fil daw si ku bëgg doom koo xam ne lu doom am ci aar bi rek ci moom ko ko jalee aar bi xale yi bu nu sañoon ñoom ñëpp loolu la ñuy def ba ci gone yi mujj jujjut ndax lu waaye doon day dëgër xam nga léegi ku jóg way waaye ñi seen maam moomoon way ñi seen maam daa way ñi seen waa maam daa way buri ñoom rek ñoo fi war a way daam mbaay mii nag moo ko mbokkal baay danoo doon aar bi man mi nga xam ne maa ko jur de waajurum jigéen damaa wax ne sama yaay moo jëkk a way rajo Kaolack mooy aj mbul dem soose booba Sénégal rajo bëriwut mu way rajo Kaolack Sénégal yëpp di ko déglu lu mu fi wayit amul tubaar fakkaala mool bëti ko ba may am fukki at ak benn yàlla boole maag baayam papaam fukki ndënd ak juróom-ñaar la daa for suy foor damay taxaw fee fa pakete lañ si di teg gone yi ku man a wat di wat ku mënta wat ma wat bu ñu paree ma boole der yi ak ndox mi ak paan yi lépp génn ci biti tuur door a bi xam nga loolu yàgg na baayam dem na ba fam dënd moo xëy dama ko tudde woon say naa ndënd mi ba nekk ni ci biir ndëndi Aliou Mbaye yi kon donn dafa foor te it la nga boo ko bañee da ngay ñaaw lu dëkk bi rëy rëy ak lu mu riir riir rek xam nga daa way léegi soxna may ni ko sëñ Blaté sa baay waaye moom lu dëkk bi rëy rek mbedday baayam te it baayam ci aar bi la doon dund man mii ba nekk ni fii ma toog ci loolu laay dund lii ma ko aw sax mënuma ko ndax barki démb rek la sama jëg ba xew lay aji xay mi bëgg naa bu daam di awee dama ko exécuté Kumba ak Malick Kumba Kayre defal ma lu ma kenn defalut daa géew barki démb ni du ma teral njëkkate décoré wu ma sama géwal li ma décoré mi ngi ma jàll ci sama kawlal bi mënu ma koo def nen xajul ci armoire bi dindi xaalis bari boole ca te ki la bëgg rek moo lay teral kon tubaar fakkaal la danoo doon géwal jaamam bii nga xëy moo yor bongo bi di ko awu baayam da daa way Sidi Mbaye Sidi Mbaye doon daanaan lu mag ci Sénégal ñëpp xam ko sama nijaay ji mu den da nga xay mooy naar géey mu bëggal ko boppam lool. tubaar fa kàlla moo daam leenu bokk sax xamuñu ko parce que man sama yaay ji ma jur moom baayam moom dong moo fi doon aw xeetam Lamine Gueye baayam moo doon sama xeetu yaay ci dëkk ba dëkk bi daj kere ba sama yaay duggee duggee ci bàmmeel faama njàmb mu bokk ak baayam ndey ak baay moo dem ci armeel sang sama yaay kon xam nga mbokk rek mooy mbokk kon yàlla na leen yàlla lafal kontaan nañ ci yéen lu waay di def daal nay lu mu gëm ñoom nag lii ñuy def dañ koo doon fortaatuñu ko ndax ñun tubaar fakkaal la sunu maam penc mu musa dem bu ne bu wooyee ñu may ko way na ay buur ñu may ko ay fas moom mi gaas mi nga xëy moo jur baayam da daa fecca Sidi Amin Ndiaye ak moor Lissa mu fi jëkk doon buur ba mu may ko titre foncier ci Mbàkke muy lee baayam am lépp buur ak ko may kon lu waay doon mu dëgër yàlla na yàlla laf cat rek damay leen jàmm yéen it kenn ku ne la ngay liggéey yàlla nga ci jariñu amin waa yaay nga daal ñuy joxalaat daam comme que ni ko yaay booy waxee ndoona dafa foor lool moom ku ne xam na ne dond la waaye daam bala ñoo lii noonu ñu daal di laaj ba xam ndax am nga single boo mas a def wala génne nga benn ki noonu album waaw waaw sista ñun yaakaar naa ne def nañ ay single yu bëree bari parce que premier single bi ma njëkk def euh, def 2007 laa ko génne woon muy wareefu sëy yaakaar naa ne kooku ku gàttul dégg-dégg rek dégg na single boobu noonu wareefu sëy 2007 euh, laa ko jëkk def boobaak léegi def nañ fi ay single yu bëree bëri euh, xam naa ni mënuñoo lim yëpp ba actuellement nii ñi ngi studio nag nekk ci enregistrement album. parce que demee ci Kazu Rajab bi rek lañ def benn single woo ci sëñ fàllu Mbacké. yaakaar naa ne ku ne dégg na ko léegi dëkk bi sax ba tax na fu ñu tourné dañuy tooñ di ñu woowee oto pipi safar arrête ndax sëñ fàllu Mbacké moom moo toll noonu kon nag daa mbaay moom def na ay single yu bëri vraiment. waaw single yooyu tamit bëgg nañ sax nga laal lañu ci waaye bala ñoo dem foofu ñu gis ne euh, gis nañ am na loo xam se ne ñoo ngi dégg nañ ñoo yaa koy wàcc daam looy wàcc noonu waaw daam bàyyi xala li muy wàcc mooy anniversaire muy jeudi bii di ñëw dëppoog le 2 mai euh, ñu di ko def fii nag Mbàkke bool gi nga xam ne fi leen dëkk fekk fi baax di profité di ci woo waa région de jurbal yëpp département Mbàkke ak li ko waa àdduna sax laay wax ndaxte su ma nit ñi nga xam ne ñoo nekk Europe sax ak Amérique Asie yëpp ñu ngi koy waaj Ndakaaroo ngi waaj Thiès ak Louga ak Ndar ak ñëpp vraiment ñu ngi waaj événement bi parce que chaque année événement bi du Mbàkke rek ñoo fi daje du Touba rek ñoo fi daje du Diourbel ñoo fi dajee Sénégal ñoo fi daje. suñ suñ xarit yi nekk Europe ak fépp sax dañ koy suivre. vraiment ñu koy defee fii Mbacke Bawol théâtre de verdure mm-hmm. di di leen jox rendez-vous jeudi mm-hmm. incha allah le le 2 mai mm-hmm. flyers bi moom nga gis nii flyers bi moom nga gis nii mu nekk noonu daa mbay xale la Baye Fall de la musique sénégalaise ah, di ci ànd ci organisation bi rek ak staffu waa xàll groupe di ci jiital naar Guèye mii toog nga xamante moom moo nekk ci bopp bi chaque année mooy nekk ci organisation bi vraiment di di ci def liggéey bu mucc ayib vraiment mu rafet lool. ak tamit du ci sonn du ci tay guddi ak bëccëg ñu profité di ko sant ci lool waaye nag. tamit duñ ko ci sant tamit à 100 pour cent. sant gi moom 50 pour cent la rek ndaxte kuy defal sa bopp moom. Mhm. doo doo tàyyi. ndax boppam lay defal xanaa loolu ko quoi am nga looy waajee bëgg nañoo xam ci li nga lan ngay indil Sénégalais yi de comme que ñëpp a ngi lay ko nga mosal ñu ci wala mënta ne. waaw léegi li ma leen ci mosal. dama ciy ñëw rek ci li sama yaay wax sànq muy gërëm googu muy wax aji xadi faal ndax man damay faral di wax ku bëgg bu Samb rek ma bëgg la waaye ku ko def neneen rek ay ree nga may daal def jëgg ci kumba ak Malick Kumba Kayre ajaratu xadi faal tey ma yaa bëgg sëy na boo tey ma way la bëgg sëy na boo tey ma way la bëgg sama yaay tey ma way xaadi faal garme ngi wayla yaa bëgg sama yaay je tay wayla jegi je kumba mali kumba kayre ajaratu xaadi faal garme ngi wayla yaa bëgg sama yaay tay wayla oo oh, ajaratu xaadi faal garme laay wayal ee eh, yaay mortala laay jiide yaayu bébé laay waaw waaw yaayu bébé yaa bëgg sama yaay ajaratu Seynabo eh, tey ma yooyu la li jëkku maag Maliku ma kay ajaratu Xaadi Faal garme ngi ne yaa bëgg sama yaay tey ma yooyu xaadi faal tey ma wange garmi baange ah, macha allah dégg ngeen émission bi daal xam naa ne ala daw mi na lool macha allah waaye nag xam ngeen li duf ci nag li lépp xajul ci jindi ba tax na xam naa dañ koy dagg fii def ko daal di jox daam mu daal di tàggatoo nag ñu daal koy jox dig daje rek ba beneen yoon daam tàggatoo waaw li may tàggatoo mooy maa ngi santaat yàlla bu baax rek comme ni ma ko daan waxee di ñaanal sama yaay ji mu yàgg fi loolu te wér Euh, di profité ci occasion bi di sant sama soxna si ngeen fekk ci kër gi muy Naar Faye yi nga xam ni mooy suma aawa vraiment te jige diw ma euh, yaay Cheikh yi yaay Sëñ Bamba ak Cheikh Ibra di ko ñaanal euh, mu dund ba Aliou mbaay di ko yóbbu Màkka tabaxal ko kër dugal ko ca ci barki Cheikh Ibrahima Fall di sant tamit rakkam tamit sama soxna la mu nekk ca kaw. tàggatoo tamit doon naa la laaj sax waaye ba fàtte woo waa Mbacke gi xam ne ñoom nga nekk ndax gis nañ ne ngay nekk Dakar lu bëri bu njiw mu def na. waaw waaw Mbacke moom mënu leen a fàtte ndax nee naa bi jeudi la. Mhm. Euh, le mhm. te Mbacke gi lañ koy defee. kon mënuñoo fàtte waa Mbacke. dëgg la maa ngi sama seex bu jigéen bi nag Seex Ibrahima Fall Lamp Ba Mouridina eh. sama xarit. waaw ak seexu naag njarkaaj ñëpp rek ndax mooy sama xarit ndax mooy Cheikh Ibra waaw bu loolu weesoo maa ngi leen remercier yéen waa vingt 24actu ah. di leen sant ci seen initiative bi ngeen def vraiment lu rafet la lu rafetlu la te maa ngi ci woo sama mbokki artistes yëpp pour ak sama fans yëpp ñu ñu ñu page bi ah eh, aimé ko di dig leen suivre parce que vraiment li ngeen di def nii di seeti ndaanaan yi def jataayu ndaanaan yi vraiment yombul te it nag vraiment ku ko def ku ko la bëgg kon daal sama fans yi am di jàmm yi xarit yi ak sama mbokki artistes yëpp bu mu limee dinaa jum ndax man artistes yëpp sama xarit lan hmm, te macha allah maa ngi leen di woo daal ñu suivre 24 ak te xam ni seen liggéey rafet na sell na ah nañ ko bàyyi xel. Hmm, di la ñaanal nag yàlla ngeen dund ba mu nekk télé bu mag a mag mag a mag bu international ci barke Cheikh Ibrahima Fall Lam <laughs> waaw dégg ngeen émission bi kon nag ñu ngi ci cëppaandaw gi dégg li daam wax nag muy waajal nag bis bu rëy boo xam ne mi ngi koy defee fii ci Mbàkke Bawol muy le 2 incha allah mu ciy woo ñëpp nag ñi daal leen di tàggatoo di jaajëfal ñëpp nag ñoo xam ne si ñoom lañ bàyyi ca kër ga fàttewuñ kenn nag ndax buñu daal di limee dañuy daal di juum seexu naa moo nekkoon ci caméra bi ñu daal leen di jox dig daj rek ci beneen jëmmi jamono incha allah jaa